إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar di seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala moom kese mi nga xamante ni jurul kenn te kenn juru ko te du nawle ci kenn di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla nañu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam baba yàlla suñu boroom di doon suufam si ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla yàlla ngi ci àddu ci alquranul karim di ni ee yéen ñi gëm na ngeen ma ragal dëgg-dëgg ragal rekk nag bu leen dellu si man lu mukk lu dul da ngeen maa jébbal seen bopp mbokk yi suñu xutba yi weesu ñu ngi ko doon amal ci benn ponk ca ponk islaami juróom yi muy alxaj ginnaaw ñaari baatu seede yi taxawal julli woor natt azaka koor mooy juróomeelu ponk bi nga xamante ni yàlla suñu borom mu ngi ko farataal ci bépp jullit bu ko mën mu nekk benn yoon tamit ci sa dund moom la yàlla di wax ci alquran ni walillahi ala nnaasi xijjul bayt man istataa ilayhi sabila benn yoon ci sa dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni taajjalu na ngeen gaaw ci koo xamante ni mën na ko charte yëpp daje na ci moom ngir mu mën a aji ji nee na gaawal dem aji ji waaye ki nga xamee ni it charte yi daje na ci moom ba mu mën a dem nee na na nga waaj nag ci lépp loo xamante ni aj gi da koo soxla nga yóbbaale ko moo tax mu ni taajjalu ila alxajji yaani alfarida fa inna ahadakum la yadri maa yaaridu lahu ndax kenn ci yéen xamul la kay xaar ëllëg kon na ngeen ci gaaw bu ngeen ko mënee ñu waxoon ci xutba yu weesu arkaanul xajj mooy ponk yi nga xamee ni ki dem aji ji bu mu ci bàyyi ajam matul ak waajibaat ya yi nga xamante ni su ko defulee ca aj ga tuur deret da ko cay war ñu waxoon ci xutba bii weesu nag anwaawul xaj muy façon yi nga xamante ni façon aj bi ujaaj bi war a tànn ci ñetti façon aj yi mu nekkoon al ifraad wal xiiraan wa tamattu tey nag bi iznillahi taala ñuy wax ni al xaj lii di aj madrasatul ruuxiya école la boo xamante ni ujaaj bi da ciy tàggat ruuxam comme ni koor gi weesu nekkoon luy doon tàggat suñuy ruux ci jaamu yàlla ajit luy tàggat ruux la ci jaamu yàlla ci ujaaj ci li muy njëkk a tàggat jaam bi mooy ci kalimatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah min awali man sakatin ila nihayatiha baat bii de mooy baat bi nga xamante ni ña fay daje ci àdduna bi yépp ñoo ko bokk di wax mooy amul kenn ku nu war a jaamu ku dul yàlla te muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni mu ne ma yaa ngi koy tàmbali nag ca ba nga armalee ci miiqaat ba waxoon nañ boo fa jógee rek ci ngay tàmbali labbayk allahuma labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wannicmata laka walmulk la sharika lak baat yooyu li muy tekki mooy yow yàlla wuy si naa la ci aj yow mi nga xamee ni waruñu laa bokkaale kenn loolu la baat biy tekki inna alhamda bépp sant nag ñeel na la ak xéewal gooñu mën a defalal amul kenn kuy joxe xéewal pour yow ndax aj màkk mbokk yi xéewal yi xéewal yi gën a màgg ci la bokk ndax alxajjul mabruur laysa lahu jazaa illa aljanna aj gu nangu yoon saa salam nee na fayam mooy dugal la bil aljanna yàlla na ko yàlla defal suñu xujaaj yëpp wal mulk nguur ñeelul kenn ku dul yow laa sharika lak war ñu laa bokkaale kenn kaddu yi mooy kaddu yi ngay tàmbale sa aj bi nga jógee ci miqaat ba mu bokk ci ñaareel bi nga xamante ni jullit bi wala xujaaj bi da ciy tàggat ak ruuxam ci aj gi mooy annahu yurabbi alfard walmujtama ala aliqtidaai binnabii sal allahu alayhi wa sallam day tàggat kenn ku nekk wala mbooloo mi yépp ci ni kenn lañu war a roy muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax la ngay defe ji ci aj ga yëpp amul kenn ko jàngale ko dul moom ba mu ko jàngalee ba noppi daf ni xuzu an nii manasikakum ajee leen nii ngeen ma gisee ma koy aje te la jiitu loolu yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa waxoon ci alquran ni laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun xasana liman kaana yarju allah wal yawm al axir wa dakara allaha kathira mu ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam de mooy seen roykaay ci képp koo xamante ne nag yaakaar na ëllëg yowmal qiyaam yàlla fay ko yàlla ñu ci yàlla defal kon bokk na ci li muy tàggat ruux yi ci xujaaj bi ci ni sa roykaay de mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bokk ba tey ci madrasatul xajj annahu turabbi alxaj ala dikrillah dalay tàggat ci tudd yàlla aj dalay tàggat ci tudd yàlla ndax min bidaayati rihla ila nihayatiha fal hajj yazkuru llah bi talbiya la ko dale ci tàmbaliment ba te muy xaar ba ñu waxoon sànq ci ngay tàmbali labbayk allahuma labbayk yaa ngi tudd yàlla ginnaaw xarmal googu ne sa kaw amatoo leneen looy génne sa gën sa sa sa làmmiñ sa gémmiñ lu dul kàddu yi tudd yàlla sant yàlla ak di ñaan moo xam xilaala tawaaf ba ngay tawaaf yaa ngi wër kaaba gi di wax naan allahuma jaalhu xajjan mabruran wa zanban magfuran wa saayan mashkuran ay yow yàlla ñu ngi lay ñaan de suñu aj gii na nga ko def aj goo nangu ay ñaan la te liñ fi indi ci bàkkaar yàlla nañ ko fóote ba mu set wecc ba bu ñuy dal du ñu benn bàkkaar ñu set wecc ci bàkkaar te lépp lépp jéego bu ñu fi dox fu ñu fi mën a dem ci ab jéego jéego yooyu yàlla na nekk jéego yoo gërëm kon ba tey yaa ngi tudd yàlla ci tawaaf ba waxilaa la saa yi boo demee ci safa ak marwa yaa ngi tudd yàlla laa ilaha illa allah waxdahu la sharika la lahu lmulk wa lahu lhamdu wa ala kulli cheyin qadir laa ilaha illa allah waxda anjaza abda anjaza waada wa nasara abda wa hazama al ahzaba waxda lépp yaa ngi tudd yàlla di daw diggante safa ak marwa di tudd yàlla ba ba ngay jeexal ak lépp loo mën a def ci aj gi moo xam ba tey ca arafa ndax fii di arafa boo fay dem dafay fekk yaa ngi jóge ci coono jóge màkk wàcc mun na dalloogoo sax ñu ne aca arafa waaye bu mu nekk ci yow ab bërëb boo xam ne da ngay dem pour noflaay te faj fa say nelaw du bërëbu nelaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na xayru duaai duaa yawmi arafa nee na ñaan gi gën te ñaan ya ca bërëb ya nga koy ñaane mooy bisu yawmi arafa mu ni wa xayra ma aqul wa xayra ma qult ana wa nabiyuna min qabli li gën ci li ma mas a wax maag yonent yi ma jiitu woon moo nekk baat bi laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mooy ni amul kenn ku nu war a jaamu ku dul yàlla suñu borom subhanahu wa taala te bokkaale ñeelu ko moom mooy borom guur moom rek lañu war a sant te moom mooy borom kàttani lépp kaddu yi nee na moom mooy lu gën ci li mu mës a wax ca bërëb boobu moom ak yonent yi ko jiitu woon yépp mu ne ca taxawaay ba ca booy toogee ba sonn sonn bay toog ba booy soonu ndax du bërëbu nelaw nee na nga cay tudd yàlla waaye la gën ca la ngay tudd yàlla mooy baat boobu ñu wax mu bokk yi ci li gën a fés ci li xujaaj bi war a tàggatu ci màkka mooy a tarbiya ala sabr ci muñ xujaaj bi dafa war a tàggat boppam ci li nga xamante ni mooy muñ ndax yàlla nee na wastainu bi sabri wa sala nee na su ngeen di dimbaliku na ngeen dimbaliku ci muñ ak julli lii di muñ nag dafa am ay xeet ñetti xeet ñetti façon muñ bi ci njëkk mooy asabru ala taati llahi taala muñ ci li yàlla digal li la yàlla digal nga war ko def nga muñ ci di ko def ndax la ngay def ji lépp seytaane moom àndu ci moom ndax jaamu yàlla la moo xam tawaaf ba jug ba ngay jug war a wëri ji kaaba ga ak mbooloo ma nga fay daje ak naaj wam lay fekk léeg-léeg wala sax muy taw sa kaw nee na yooyu bu fekkoon ne amoon arme bi ñuy wax muñ doo ko dékku te lu yàlla santaane da nga ko war a def wasaayu muñ ci ba ngay daw ca araf ca safa ak marwa muñ ca taxawaayu arafa muñ ci ba ngay dem ca mun na muñ ca ba ngay dem ca musdalifa béréb yi ñuy wax yépp nag béréb la yoo xamante ne nooflaay amu fa musdalifa mbokk yi fa la ñuy faree xeer yi ñu waxoon xeer ya ngay sànni ci jamaraar yi foofu lañ ko faree ca musdalifa waxoon nañ ni 70 ngay for muy tolloog 7 ya ngay sànni ci jamra aqaba ula ak 21 yi ngay sànni ci ñetti fan ya nga fay def ci ayaamu tashriq yi bu fekkente ni ñetti fan nga fay def bu dee ñaari fan nag dina des juróom dina des 21 prières yoo xam ne waroon ko sànni moom la yàlla wax ni man taajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alayhi ku fa def ñaari fan baax na waaye ku fa def ñetti fan tamit baax na waaye béréb la yoo xamante ni mbokk yi la nga tàmmoon sa kër amu fa tëdd ci lal bu nooy tëdd ci béréb bu ñu climatisé di joxe say service jox ma lee jottali ma lii defal ma lii amu fa béréb la boo xamante ni kon dañ fay tàggatu ci ak muñ wa sabru ala maasiyatillah da nga cay muñ tamit ci lépp loo xamante ni luy jur bàkkaar la ndax la fay daje ci mbooloo du ni góor ñi fii lañ war a jaar jigéen ñi fii lañ war a jaar déedéet góor ñi ak jigéen ne ñooy bokk la ñuy def te manasike moo tax yàlla suñu borom di wax ni alxajju ashhurum maalumaat fa man farada fihinna alxajj fala rafata bu fa def lenn loo xamante ni da lay yóbbu ci mooy yàlla ndax jaxasoo ga fa nekk ci góor ak i jigéen ay mag ak i ndaw nee na nga muñ bés sa xol faju ci feebar bi nga xamante ni feebaru bakkan la ci mooy ngir lépp loo xamante ni luy jur wàllu mooy doo ko fa xalaat a def te ndegam nag bi nga xarmalee lañ la tere la daganoon ci yow wat say karaw laal parfum lépp lu daganoon la sol yére bu la neex dalaa daganoon te tere nañ la ko ci xarmal bi takk soxna ñu toll ca dëkk ba ñu nekk ñu la may nañ la soxna xaraam na ci yow ngay jigéen tamit ñu ni may nañ ko borom kër loolu benn daganu ci yow rëbb rëbb di rey dara tere nañ la ko romb garab dagg ko boo ci def fekk yaa ngi ci xarmal gi da ngay tuur deret yooyu ñu la tere yépp te mu nekkoon loo xamante ni yii dagan nañ nen na nga koy bàyyee na nga ko bàyyee la nga xamante ni moom boo xarmal ak boo xarmalu yëpp daf laa xaraam moom mooy luy jur mooy yàlla wa sabru ala al aza kii dem aj tamit dafa war a muñ ci lépp loo xamante ne ak ndor la ndax fa nga jëm mbooloo ma fay daje te dëkk ya ñuy jóge la nga daan def te aayul ci yow mën na aay ci ñoom la aayul ci ñoom mën na aay ci yow waaye na nga muñ nee na bépp lor boo xamante ni nit naa nga ma nga la faway lor mais na nga ko jéggal fexeel ba bul lor kenn waaye ku la lor it na nga ko jéggal kon mbokk yi lii di xaj école la boo xamante ni dafay tàggat suñuy jikko ci di jéggale di maslaha di rafetal di joxe la nga soxla al isaar al isaar mbokk yi mooy lii fi nekk de lu am njariñ la te ñaara ko séq te kenn rek moo ko ci mën a jël nga nangu koo joxe yow nga ñàkk loolu mooy al isaar te boo demee dafa bari lool nga nekk ndaw fekk fa ay mag wala nga nekk ndaw fekk fa koo xamante ni dafa ñëw ba foofu sax tële nee na boobaa yow na nga fexe ba du aj dong moo la fay indi say li nga war a def rek waaye na nga dimbali li nga xam ne yaa leen tane nit ñëw na fa sax wàcc rek ay bagaasam réer xaalisam yëpp réer na kooku nan lay def yow boo ko xamee lu dul dimbali ko kon mbokk yi xaj li muy defar ci jaam bi moom mooy tàggat ko ci ak ruuxam tabba tàggat ko tamit ci ay jikkoom yaan ñoo defal dëggal topp aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ba tey ci li aj di def ci ruuxu xujaaj bi li ci njëkk mooy al istishaarul quluub istishaarul quluub li waxdaanitillah subhanahu wa taala mooy sax ruux dafa war a yëg kenn nag yàlla suñu borom subhanahu wa taala ndax nee na jamono ji ngay dem di xaj fa ngay jublu fenn la ci àdduna bi mooy makkatul mukarram kan koy fekk ji kenn rek la mooy allah subhanahu wa taala moom rek nga fa war di ñaan moom rek nga fay def lépp luy xeetu jaamu yàlla ngir moom fa ngeen di bokk di ko wër yéen ñëpp yéen a ko bokk di wër muy kaaba bi dafa santaane kenn la muy suñu borom subhanahu wa taala mbokk yi dafa bokk bokk ci yëg-yëgu doomu aadama rawatina xujjaaj bi ca miiqaat ba mbokk yi la nga njëkk a def mooy danga sunneeku ba set sangu set sol yére yu rafle nag yére yu rafle nga sol wardoo bi laxasaayu fii xanaa di yow julle sa bopp rek a des te nit du jullee boppam nga dëgmal kenn muy suñu borom subhanahu wa taala moo tax lépp lu ne sa kanam da nga ko war a rayee kenn rek moo war a nekk sa kanam mooy allah subhanahu wa taala subhanallah moom rek moo war a nekk sa kanam benn yëg-yëg moo war a nekk sa kanam mooy yàlla mii nekk sama kanam duma fi ñaan kenn ku dul moom duma fi sabab lu lenn luy jur ak meram duma fi roy lenn lu dul li yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ni xuzu anni manasikakum def leen nii ma jàngalee xaj xaje leen nii mbokk yi lii di aj daf lay tàggat ba tey ci al imtisaalu bi amrillah ni yàlla lim digle mbokk yi du ay caaxaan te yàlla lépp lu mu la digal defal boo xamoon la cay njariñ kenn du la ca jiitu lépp lu mu la tere bàyyil boo xamoon la cay lor bu la ko wanoon kenn du la wax bàyyi ko mbokk yi alxajj dafay tàggat ba tey jaam bi ci ni yàlla nee na inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki ma gën a ragal te yàlla dafa wax ni yaa ayuha nnaas ay yéen nit ñi waxul sax jullit ñi nit ñëpp la boole ni inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa maa ngi leen bind ay góor ak jigéen wa jaalnaakum shuuban wa qabail li taarafu ma bind leen ngeen nekk ay xeet yu wuute ku ne fa nga nekk waaye mbokk yi gis nga boo demee màkk ngay xam ni ñun ñëpp benn lañ chinois baag américain baag africain baag ñëpp ñoo bokk li ñuy def ñoo bokk lenn li ñuy def kon yow mi nga xamante ni yaa fa nekkoon autorité ci sa dëkk boo demee nga xool sa col ko xool an sa mbaxane ya an sa beere ya an sa yëpp yi nga yoroon mi ngi ci suuf tey yàgg ñi fi nekk ñëpp yéen a bokk maase di def lenn kon mbokk yi xaj da lay tàggat ba tey ci ne nit ñi ñëpp benn lañ yow mi am alal yàlla dala kaa dénk am lu mu la ci sant ka ñàkk yàlla nekkul la koy sanctionné yàlla noonu la bindee àdduna bii ki am nay dimbali ki ñàkk ki ñàkk bu mu xaddi mukk ni yàlla dama ba bëgguma déedéet yàlla nee na léeg-léeg ma jox nit alal fekk dama ko bëgg a duma ëllëg moo tax ma jox ko alal yow mi ma xañ su ma la joxoon alal nga beew ma xañ la alal ngir ëllëg ma duggale bi aljanna yàlla mooy alxakim mooy ki xarañe xam lépp lu muy def ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يا رحمة الله